appartement waye nak ki ma tijjil nee ma dal dalal na gan teeguma ko dal ci sal bi dima xaar gis nga lol de deg na ko de dama dalal gan teego ko deg na gan nga fi and sama salon te man wacce guma gan gi kan la dafal ñetti pa nga xol nga sigi ma ma ma dox tuti xol doxal ñetti pa ba weñ laal la ñett doxal ba weñ laal waccina <laughs> eh, gis <laughs> na gan de sa gan nga non non dal mat gan gi mat na gan ku senegal nam eh, nuyu naa la. mustafa Cissé Lo. nag am naa gan sama appartement. gis ngeen ñëw si waat nañ ci émission appartement 221 ma dalal gan gan gu mat gan daal mu di Moustapha Cissé Lo xanaa dama naan fax rek jàkkaarlu moom ndax kon moom dafa def kii yam grand boubam bu baax man tamit ma fël ci grand bu baax yaakaar naa suñu waxtaan dina mën a neex sëñ bi. ëcc ma daal di toog rek ñu tàmbali suñu waxtaan daal nag yaa may andil ku ne. gis tey ku Sénégal na moom. daal yaa may andil ku ne tey kañ ma andil nag neex na ma. parce que nag dañuy wax ne nag rëbb jàpp ci gën a neex dafa nekk koo xam ne télévision yi dañ koy wër askan wi di koy wër tey nag moom la ma dàll andil ci sama appartement 221 ñu fa yéene waxtaan ak moom mu di Moustapha Cissé Lo laataa ñu dugg ci waxtaan dañ lay bàyyi rek nga nuyu ak askanu Sénégal yi nga xam ne yaakaar naa ne ñàkkul ne namm nañ la lool. nuyoo loo. jërëjëf maa ngi nuyu bokki Sénégal yëpp euh, ak sénégalais yi nekk ci diaspora bi. Euh, di nuyu suma sëriñ sëñ Cheikh Sidi Mokhtar xalif général de Mourides euh, yal na ko yàlla yàggal ko fi te mu wér. Euh, di nuyu it auditeurs yi ak auditrices yi nga xam ni yëpp danañ di seetaan Sen TV. di nuyu Bougane mi nga xam ni moo fi monte instrument bi ci réew mi pour ñu war ci waxtaane lu bëree bëri yow tam maa ngi lay siyaare bu baax a baax. waaw euh, yi namm nañ ma namm naa leen kon nag def naa ne loolu moom lu am solo la. comme euh, xam nga namm naa rek namm nañ la rek baax na euh, Moustapha Cissé selo kon di suñu gan saa Touba wala saa Louga parce que dama dégg ñu ne Moustapha Cissé Lo takk nay bagage am Touba la mu fa amoon lépp ñibbi war na Louga nga mu juddoo. loolu dama il faut ma corriger la ndax la ma am Touba jàpp naa ne fu ma ko yebbi du fa war a xaj. ndax euh, man dootuma gone 66 euh, it laa jox sama bopp xaadimal Moustapha muy Serigne Touba ma jaar ko ci sama sang ba sama sëriñ yàlla na ma ko yàlla fayal muy sëriñ Moustapha moom sëriñ Bachir mi nga xam ne mooy sët boobu nga xam ne moo am ngërëmal sëriñ Touba liggéeyal sëñ Touba ba sëñ Touba yépp gërëm ko kooku laa jox sama bopp ginnaaw bi sëriñ Bachir wàccee liggéey euh, defe naa ne Touba it 74 ak léegi lépp lu ma am falaa ko def dama doon xëy di gont di wër Touba di tax toog ci marché ocas mu wéet lool booba boutique koo fa koo jaay boutique ci marché ocas juróomi junni du ko jënd mu wéet lool ma fay nekk ngir sopp gu ma ba sopp Serigne Touba di liggéey lu ma am lépp nag ma def ko Touba teral naa fa ay nit ngénte naa fa ay mbàkke mbàkke dimbali naa fa ay mbàkke mbàkke dimbali naa fa ay seex dimbali naa fa ay ndaw jàpp naa ne yóbbu naa fa mbooloo it màkka ba ren ren ji rek yóbbu naa fukki nit màkka te waa Tuubaa ci ëppale ren fukki nit dégg naa sax ñuy wax député yuy jaayi billet nañ ma ca génne de. jaayoo de génn nañ ma ci génnee. dama ni fukki nit yóbbu naa leen màkka ak mu ne ma yóbbu. ci sa poche bopp. xam nga booy yóbbu màkka moom. poosu bopp amul ndax bu doon loo sàcc moom dañ lay jàpp kon boo ko lijjantee ba mën a yóbbu ay nit màkka it yóbbu nga leen màkk rek li am solo mooy nga gis nit ñoo xam ne màkk soxal na leen ay julliti yàlla lañu bëgg nañoo dem nga fexe ba ñu dem màkk lu ci biir nguur gi tam. Euh, loolu lépp duma ko leeral dama ni fukki nit yóbbu naa leen màkk ren def na lu rek loolu fukki nit il faut ma wax ko kon

mooy événement bu ne nga laaj lan moo ci xew boo bëggee xew xam ñu leeral la man Touba laa la laa dëkk damaa toog Touba di fa liggéey liggéeyal fa sëñ Touba ba am ngërëmal sëñ Abdoulaat am ngërëmal sañ Saliou am ngërëmal sëñ Moussa Basirou am ngërëmal sëñ Modou Awa Balla ak ña ëpp ci Touba di kilifa yoo xam ne ñu baax lañu ñu gëm sëñ Touba di liggéeyal sañ Touba muy ay seex muy sos sant Mbàkke ñu gërëm ma ma toog benn événement am bu politique. ñu taal ci samay kër. dinañ ci ñëw. waaw waaw waaye nag fi nga laale la. kon bu ñu ko taalee am naa droit bu ma amul kër ma seet fi ma sopp ma toog fa. Dakar laa nekk maa ngi. foofu lañ ma déyee loolu. Mm. Ah, parce que dañ ne ma nag ak élection local yi nga xam ne nii gagné woo ko ak itam euh, taal gin taal sa kër looloo tax nga mer ba ne xaama dellu fa ma jógee woon sama cosaan. xam nga mer moom ku muusul rek ko koy def. xam nga bu ma meroon am naa pexe fayu liñ ma def mën na maa fayu. am naa moyen jël ay wuyu taal këru ñu taal samay kër ndax xam naa leen am naa ko am naa possibilité yi ndax man na bu moo neexoon ma fay ay nit ñu taal ko ñooñu dootuñu am jàmm mais nekkuma ci logique boobu dama xam ne kiy fay muy sëñ tubaa fay na ma te kiy fayu muy yàlla ak sëñ tubaa dana ma fayul looloo tax awma boobu problème kon mer moom passé naa ko ndax kër ya ña ngi koy tàmbali defar kon où est le problème

te xam nañu it ñi ko def kooku fukki at amul sax wax bu ma porté plainte taxaw dañ koy régler par force. lu tax yóbbu woo leen ci yoon. loolu sama mbiru bokk la. Mhm. loolu duma ci commenté mais dama la bëgg wax ni kon mer bu amoon dama leen di def ci kaso bi soit alpha. Euh, léegi nañ dugg ci ci problème boobu sax mais euh, li nit ñi bëgg a xam mooy comme que Moustapha Cissé Lo nee na ni euh, delluwul lu ko fu mu dëkk jamono ji ndaxte dëkkatoo Touba. man kër gi moom taal nañ ko. Touba taalibe bu gàddaay dem fa. fa nga dëkk fa élire domicile Mustapha Cissé député la bu département de Mbacké député Sénégal la député APR la ndomba gi ma am sénégalais yi ñoo ma ko jox ci liste nationale waaye bi may politique maa ngi politiquer département Mbacké kon ñooñu en premier lieu am na lu ma leen yoreel mooy lii seeni tawat ma ciy dox di ci wax di leen jariñ maa ngi koy def lolu moy suma gar mais bul fàttali na nag député di vice président de l'Assemblée nationale dafa am fi bureau ma doli ci yalla doli ma may député di vice président parlement CEDEAO ma am fa bureau Yalla defati ma nekk UEMOA comme nek fa euh, trésorier ci chambre consulaire régionale de l'UEMOA ay ndomba la yuma yalla jox amna nak ñuma ko ñaané yene wuñ mako ko ndax buñ ko doon joxe duma ko am mais nak yalla koy joxe te jox te maa ko téye te damay wut luma ma ci doli gëm naa ne nag te dama cee boole yor di président chambre de commerce bu Diourbel kooku ma ciy santaat sañ sëñ si Sidi Mokhtar ndax ndomb bu ma ci wut bi ma koy daataan wut ñaanal na ma ci. ba ba ma jot ci. ba ci élection yi bi ma ciy dem fekk ko Darou Moussi sëñ Cheikh Sidi Mokhtar xam nga lu ma wax. Mm-hmm. maa ngi lay sant di la gërëm ndax bi ma eh, la xamee ba léegi ndigal lu ma la sant def nga ko te loolu rek la kilifa am. Mm-hmm. te loolu du ma ci jóg. Mm-hmm. kon foofu laa ne. li bés bi ma la wax it xam ne sëñ Saliou ma ko digal muy douzième édition sant sëriñ Saliou sëñ Saliou ma waxoon ni ma naa ko indi Touba di ko def lakk nañu kër ya ña ngi koy defar pareegul mënta dalal ay gan mhm. maa ngi ndakaaru am naa fi fu mën a dalal ay gan te sama njaboot a ngi fi moo tax ma ne le premier novembre ci CICES nañ fi sant sëriñ bi ku meer doo sant sëriñ bi. kon Dakar nga dëkk fi mu toll fi laa dëkk fu bay dëkk feneen fi laa ne. fi laa dëkk mais nag xam nga nañu kër mu ñëw Dakar man dëkkuma Louga. kër mbaari laa dëkk 6 kilomètres de Louga danaa fa defar kër defaruguma ko woon ba bis na ko tey gu rafet goo xam ne gi bu ma sonnatee noppalu fa bu ma demee ba ku dof te amoom xel mhm. te yàlla mayu la xel ak xalaat nga jëf-jëf yu mel ne lii ñu jëfoon taal sama yëf ma dem toog kër mbarik ndax kenn du ko taal bu boobaa nag loola mooy doon sama comportement ñu ñëw ci taal bi tamit euh, parce que euh, ci lañ ci lañ ñu ngi koy boros sànq ba tey ci la ñuy dugg wax ci euh, ndaxte nag sànq yaa ngi wax waxu dañ maa tooñ ba ñëpp xam ne dañ maa tooñ mais tamit li indi wax ji mooy benn enregistrement buñ gis ni ñooñu gis ni dañ cee laal seenu mbokk ba tax ñoom ñu mer jëf jëf joju ñu jëf ñu tay sa ak ñoom lan la ak itam fan nga ak mbir mi né nga né nga waxu yoon mom do ci wax parce que do ci dugg da nga wax dama la wax lu leer mhm. nit ku amum xel yeen ci ay enregistrement ngeen di liggéey buñ la la enregistré nañu di wax na la dara wala wax la ak lu wax jamana graw graw graw da nga wara am am xel teey dal ba lijjanti ko ñooñu nga xam ne dañuy bañ enregistrement yàlla enregistré na leen da leen a boole ki malaaka malaaka yaa ngi bind li ñuy def di ko nëbb ak li ñu nëbbul loolu tey bu yàlla muri woon mbalaan moom ñoom ñëpp ñu ci bari dañ naan mentañ ci suuf si ndax ku ci ne yaa ngi def loo xam ne li bëggoo ko ko gis wala ngay wax loo xam ne bëggoo ko ko dégg. dëgg la kon problème bu amee ñu loolu man may kilifa ci réew mi kuñ ko mën a wax ak noo jàppe noonu la sa daraja toll. da ngaa war a fexe ba lañ la waxal rek bañ a nekk loo xam ne ku ko xool dana gis ne loola def la ko looloo am solo yow buñ ñu lay waxal loo xam ne li ñaaw na fexeel ba yow lañ lay waxal ci lu ñaaw nga fexe ba kenn du la ca gis loolu moo am solo waaye solution bi du ki ko wax naa dem rey ko wala naa tal kër boo ko defee da ngay violer li nga xam ne mooy règle yi dañu wax ni bu la nit waxee lu mu la war te wax yoon a ngi fi Sénégal pays de droit la am fii ci Sénégal dafa am ñoo xam ne bu leen neexee dañuy fajal seen bopp te dara du leen fa du leen ci fekk loolu moo dul dëgg kon da ngay dem laaj leen ñoom ñooñu lu tax ngeen dem taal fi jàmm loolu mooy wax bi mais man du man maay répondre Euh, yow mënoo cee wax parce que ñoom tamit. ci loolu la ñu ci commentaire bu ma ciy def li nga ma ci laaj sax dama ne woon dama ko ci wax mais dama dama bëgg wax boobu ñu coupé. mais askan bi ñu leeral aussi mais euh, askan war a dem xam nga du man rek la ñu war a ñëw dañu war a dem ci ñi taal. laaj leen xam ne amuñu droit ñoom taal xam nañ ko bu ma neexoon suba ñu jàpp leen. suba bu ma neexoon ñu jàpp mais baal nga leen. man baaluma sax kenn. waaye nag nekkuma ci logique baal ak bañ a baal réew lañ nekk bu réewu droit am na lu ñu jëf jëf joo xam ne ji ñépp ñaawlu nañ ko comme ni ma ko waxee am naa ay kilifa kilifa yi yëg nañ ko maa ngi leen di déglu di leen xool foofu laa toll mais nekkuma ci logique bu baal naa wala baaluma ndax baal moom defuma ko samay mbokkit baalewuñ ah, kon non non mënumaa baale loolu dama koy topp ba ñu dem ci bisu pénc ma ñu leeral ko ba xam ñooñee danañ am ku leen aar ba li ñu def kenn du leen ci condamné wala dé mm. te it damaa gëm ne ba bisu penc ma sori na bala ñu cee àgg danañ gis loo xam ne li mosuñu koo gis te man du sama loxo du ci ne. Ah, loolu laa gëm. mais est-ce que nekkoo ci logique gu defante. defante wu ma mais dafa damaa jàpp ne ku tooñ. yàlla man na laa fayu loolu laa jàpp ndax yàlla kala dañ leen kalaamee ak yàlla yàlla ak Serigne Touba li nga mm-hmm. xam ne mooy sama yaakaar tey ak moom nga leen kalaameel daal waaw mais Serigne Serigne Touba tubaab bi sax na loolu leen ko lool te teerewul dafa jéggale de xam nga man sëñ Touba référence laa ko def ci moom ngay roy mënuma ko sax roy mais damaa jàpp ne moo gën mhm. ma yaakaar kon fii ak fa lu jëm mhm. kon bu ma nit defee ndax jàpp naa ne man liñ taal ci man lépp alali Sëriñ Tuubaa la mhm. loolu laa jàpp ndax defuma ko Kër Mbaari Tuubaa laa ko def titre foncier yëpp sañ Tuubaa la bi ma ñëwee it damaa fexe ba nañ règle yi fay dëkkee ma respecté ko du ma mooy yàlla du ma sàcc du ma fen du ma rabaj loolu ci laa nii kon kii war naa neex a dëkkal war na nekk taalibe mas naa ko wax sëñ Saaliw ni ko bu taalibe yépp melee ne man da des na la noppal ndax kenn du ma fekk ci loolu nga xam ne sëriñ bi da koy tere ci Tuubaa naanu ma sàngara tuxuma muyuma yàlla sàccuma fenuma rambaajuma te damay joxe addiyee ju mat nag ay enveloppe yu diis laay joxe yu man enveloppe yu diis gan laay joxe damay joxe addiyee yoo xam ne boo koy génne da ngay jàpp damay joxe waxuma jàpp damay joxe addiyee ju diis ju bon nag ci yëf yi laa bokk mbir nag boo ci bokkee <laughs> bon ay erreur dana ci am ay jumte dina ci am lépp dana ci am mais sëñ Touba laay waaje moom laay wàllee loolu dama bëgg mu leer te kenn mënumaa jëlee foofu sëñ tubaab maa ko gëm maa ànd ak moom maa ko yaakaar fii ak fële tax gëm naa ni barke Cheikhul Khadim sëñ Touba dana ma teral ba ñëpp teg ci bët mm. loolu rek a mu wër moo tax loolu la mais nag ñi yàq sama yëf te def ko ci seen kaña seen euphorie maa ngi leen di bàyyi ak euh, euh, man li ma jaaxal ci wax ji nag Moustapha Cissé mooy euh, li tax ma njëkk la laaj sax loolu mooy dañu ne li tax nga gay wax ji waxatoo ci maanaam toppoo ñee dara yaa ngi wax sax waxu police du ma ci wax ak yeneen ñu leen doo ci wax mais dañu ne nag da nga jot ndàmpaay ci mbàkke mbàkke yi ak ci Macky sàll ndàmp nañ la ndàmp goo xam ne kër yaakaar naa ne R plus 20 sax mën nga ko tabax foofu. dégg naa ndàmpaay la duuf na nag. dégg naa ba muy <laughs> dégg naa tamit mbàkke mbàkke yi li ko jox tarkalla macha allah fukki nit yi nga yóbbu màkk sax mën nga ci yóbbu sang. <laughs> xam nga loolu loolu moom daf may reeloo boo ko waxee faaw ma ree quoi <laughs> ndax loolu. xaar ñu ree ñu ni yéen da di toog bu ngeen bëggee xam dara ngeen sos dara teg ko. créé waaw sos créé. danaa nettali de. ah ku la nettali ba mu la nettalee da la ni nangam la ma diw jox waaye doo ni ay mbàkke mbàkke mbàkke ban moom ma ko jox. am na wala am. de dama ni man kay du ma ne am na da naan ma mbàkke mbàkke diw nee nañ jox na la wala nga ni pale ba Macky Sall nangam la la jox loolu moom wax dëgg yàlla. Euh, jàpp naa ni nga ko wax dal euh, ak ni mu amee moom dana soree lool soree na lool. léegi Mbacke Mbacke joxuñu la Macky Sall joxu la. xam nga su ma sukkandikoo xam nga Mbacke Mbacke yi moom seqaluloo man ñoom. yaa leen di jox. waaw. loolu laa mooy sama option. addiya pour di leen jox addiya waaye nekkuma ci logique gu dem di leen jox ñu may jox. Macky sàll nag seq nañu lu bëri loo xam ne bu yore xaalis war naa ci mën a am lu bari lu ñu seq loo xam ne war naa ci am Macky Sall bi nu nekkul ci pouvoir même dañ doon seq. ay joxante xaalis kon duma toog ni la mag Sall joxuma dara ndax dañoo séq boobu relation tey bu ma amee lu ma soxla te jàpp ne mag Sall yor na ko fii ma toll rek damay jóg ne ko loolu dama ko soxla jox ma ko waaye nag mësuma koo laaj lenn lu dul li mu moom loolu it dama ko bëgg a laaj daa alalu askan déedéet alalam lim ci am mm-hmm. bu dee am na lu ma ci soxla mbaa ma am yitte joo xam ne yaakaar naa ne war na cee def loxoom. dama naan ko président Macky Sall dama bëgg nga dimbali ma ci ma Macky Sall fi mu toll danaa la wax loo xam ne sax xam naa bu ko déggee dana reeba sonn maa ngi ko ba mu faloo ba léegi maa ngi koy ñaan oto mais joxaguma oto ndax damaa bëgg. boo xam ne. Euh, président Macky Sall. moo ma ko de la république. la joxee jox ma fa man. waxuma loolu man yow li ma seq ak moom seqoo ko. Ah. ba léegi. citoyen laa maa ngi toog ganté lagu ko fuma mako ko waxe rek mu rek waye dëgg mu jox ma auto bu rafet bo xamne dañuy xamne président de la république bi xaritou Macky Sall euh, Moustapha Cissé Lo moko jox auto bi euh, momi président man citoyen la ko Moustapha Cissé foko joxe rek ma ngi xaar sama boss mais Moustapha Cissé ni nga waxe sank Touba dañ ci takrib tak takolo sax dañ ci takrib bu doon uyul dama na nungu ko da nga bëgg Serigne Touba ci sa xol machallah bëgg Serigne Touba dañu wax ni nak ku bëgg ginar mëno bañi nenam munu mani wax mo bañ sax reyna munu mani da nga am mbañeel ci yenn mbake mbake yi mais dal parfois nga jël ñenn ci ñom di sanni xeer wala yenn est ce que tamit lolu waa ci digënté ci digënté taali ak sëriñum dama lay laaj sa digënté ak sa trayu mhm. kan nga dégg Sisselo budul enregistrement bi nga xamné wa Iblis ñoko def di ci politique <laughs> def lu leen neex ba génnee ko nga dégg mani mbàkke mbàkke bi nangam te bu dee it yàlla ngay wax war ngaa xam ne sa bàmmeel ngay la layoo mhm. kan moo gën di défendre Touba ak yoonu Serigne Touba ci ñi nga xam ne dañuy takki ndomba mel ne ma waaye instrument ba dañu dégg nga lim tur may ma tuuti may ma tuuti ndax loolu dafa baax préciser ndax boo waxee day mel ne man damay xuloo ak i mbàkke mbàkke am na ñoo ci neexoowul bariwul. mais am na. xam nga mënta ñàkk. ku dëkk Touba 40 ans ak li am ci mbàkke mbàkke ci Touba bu ma ne laa ñëpp laa neexool ñëpp neex naa leen nde man ñëpp neex nañ ma waaye nag am na ci mbàkke mbàkke ñoo xam ne man neexuma leen ñooñu nag. bu ma xamee ni neexuñu ma lii sama wàll joxuñu ma ko lii sama cër joxuñu ma ko sama daraja joxuñu ma ko niñ ma jàppe laa leen di jàppee foofu la problème bi. déedéet day defante moom day defante déedéet bu boobaa nag dootuma xool ci maam ndax sëñ Tuubaa ku teraloon doomu aadama la ku wormaaloon doomu aadama la te loolu la jàngale woon. sëñ Tuubaa xeexul xeexluwul sëñ Tuubaa kenn mësu koo gis muy digle ñuy lakk ay këri jàmbur. kenn mësu koo digal mu dégg muy digal Cheikh Ibrahima ak ñi mu àndaloon gën koo topp ni leen dem leen xeex ak diw loolu sëñ Tuubaa mësu koo def kon képp ku koy def dootuma la gëm dama lay weddi xam ne yow fa nga war a teg sa tànk tegoo fa sa tànk gannaaw nag xeex ak xuloo moo la tax a jóg ah, ah politique la tax a jóg bu boobaa boo politique ak man dama lay répondre comme politicien boo xam ne bi moom ngay waxal foofu la problème bi nii. Mm. loolu damaa bëgg ñu ko. ba mu leer problème tamit foog mu leer problème diggante Moustapha Cissé Lo ak député lan moy seen problème koku duma ci wax do wax xam nga ni boy wax da ngay wax ak sa morom ko xamne da ngeen tolo tolloo niveau do mapando dama ci dul wax koku lima ci wax rek lolu la fofu laaj ci yem am waxtan nañ continuer koku mom duma ci wax do leeral sax ko li ngeen tudde lan la lutax tax fo len tok toog ci tuddante go xamne ne du am diggal duma ci wax jallal bu lu yak sa ton ndax duma ci wax do do commenter ci mom duma ci wax duma ci wax jaruma jaru sax ma laaj neena du mapando pandawam de nga ni daal. du nee na du màppandoom du moromam du màppandoom te pourtant de moom la doon defanteel Touba de. ñu ñu des waaw doo ci tontu moom kay mën nga bàyyi ma ay ma jàll sama beneen laaj moom nga doon defanteel Touba ci ci élection locale yi nga ñàkk nga waatoon nag nga ni su soo gaj suñ la gënee ci locale yi politique moom bàyyi nga ci. ma gis ma gis ba tey ci politique bi dama bañ eh, eh, débat ñu porté ko ci loo xam ni amul man. kilifa parti la bu tuddu APR ci département Mbacké mhm. depuis ñu créé APR APR fu mu am lamu am ci département Mbacké néew ak bari sama loxo mo ci dugg bu baax a baax a baax baax pour mu am ko gëm na ni lamu am ku ko xeeb bu ma ca nekkul peut-être xaj ba lay am wala un quart ba lolu la gëm kon problème diw nga doon xeexal amul man dama jité ab liste à 10 jours des élections yépp yi nga ont sondage rapport APR était devant au moins 60 à 65 fait enregistrement ñu parce que élément de réponse ci rythme inculqué C'est nous doon réalité bi rek fait nañu enregistrement, nañu taal nañ un enregistrement, fait

te <laughs> mais ñun boo génnee Touba boo génnee Touba parti yi fa des yépp yépp dañ leen a laminé boo génnee Touba fépp y compris le PDS dañ ko laminé boo jëlee le reste département loolu mooy réalité bi. léegi euh, euh, li am mooy fait bi mooy. gagné nañ la ak ci anam buñ la gagné rek gagné nañ la foofu nga waatoon nag wax wax loo xam ne nii tamit ñëpp déggoon nañ ko buñ ma gagné ma bàyyi politique décision décision boobu c'est pas vrai loolu mësuma ko wax. léegi loo waxoon. dama ni woon. bis buñ ma gagné. Mm-hmm. coordination APR bu Mbàkke bi danaa ci démissionné dootuma ko jiite. Mm-hmm. mais mësuma wax kenn. mësoo wax doo bàyyi politique. génneel cassette bi ndax man kuy wax ci télévision la. Mm-hmm. demal nga génne ko coordination APR biñ ma gagné ci la démissionné delloo ko boole ci directoire parti bi ak secrétariat exécutif. bokkutoo. démissionné naa ci mais. mais député ba tey militant APR la APR la bokk. di député. de mais damay milité yi Touba damaa am ay militants yoo xam ne yii ñoom man maa leen mas di coordonné te ñooñu ñooy majoritaire ci département bi ma bokk. Mhm. ñi ànd ak man ñoo fa ëpp. te duma leen sànni xanaa doo ànd ak nit ay nit di politique ba mu yàgg ñu gañe la nga sànni ña nga àndaloon ñëpp du ma ko def. Mhm. ndax tolluwuma foo xam ne da nga naan ma demal retraite politique loolu nga may wutal. Mhm. te loolu xalaatuma ko. man damaa pare pour accompagner président Macky Sall ak nit ñi te ñi ma gëm nekkuñu Mbàkke rek. ndax yaa ngi may tudd Louga dama fa bari ay nit Dakar gii ma bari fii nit diaspora bi ma bari fii nit boo demee cees ma bari fay nit Mbour fépp laa am ay fans club tey APR bu Macky Sall jàllee wér na ma ne bu ma ci ku ma ci woteel bu dee nit ñi dañuy dem benn benn par vote dóor yu metti laa lay dóor. nga je suis le plus populaire maa ci ëpp mbooloo loolu la yàlla dogal. ci APR yaakaar barke Cheikhul Khadim. ginnaaw Macky. bu Macky jàllee rek maa ci ëpp le mbooloo. yaa ngi ci Moustapha Cissé Lo est ce que taxul biir APR nga bari fay noonu. parce que nag sama dàll nag day dem day dikk. Mhm. te sànq ba mu la dalalee ba pare am na lu ma dee. waaw nee na ma. Moustapha Cissé Lo bariwul soppe biir APR gars yi nee na luñ sañul wax yaa ko naan teel wax. loo xam ne dañ koy xaw a xaw a nëpp nëppal seen biir parti bi Moustapha Cissé Lo moo koy jëme kaw buñ ma bañeete wanuñu ma koy amul problème wanuñu la dara yow APR ci boppam ña am na fuñ ma teg ci respect buñ ma jox loolu laa xam respect lañ ma jox xam nañ ci ñu ci bëri it ne seen kilifa la ndax maa leen mag maa leen dàq politique maa leen jëkk ci politique te ku ci jaaxle da ma seet si. yaay seen numéro ministre bu bokk APR wala directeur wala député ku jàq da nga ñëw rang sama bureau loolu yàlla dogal APR dama ñi ci ne maa leen mag maa leen dàq politique maa leen ëpp xame maa leen gën a siiw. bu Macky jàllee. mënuñu laa siis ko. non non mais bu ñu ma sisee dañuy perte seen temps ndax bokkuñu dañoo bokkul man bi may nekk ay député ki di mën a bokk ci ay milieu booba ñii ñépp ñi fi ne xamuñu luy politique sax mbaa boog kenn xamu leen ñu ci bari bu ñu leen xamee Macky Sall tax ñu xam leen man nag dañ maa xam avant Macky Sall di ñëw. 98 laa jëkk a nekk député. fallu yaat conseil de la république Fallu président chambre de commerce fallu yaat député ci Ablaye Wade. fu ñu faloo rek ma falu man kon nag ku ma bañit xëy na dangaa bañ koo xam ne ki jàmbaar la rek te it <laughs> ñu bañ ma du seen intérêt ndax jàpp naa ni li fal Macky sal poids bu diis laa ci teg balance bi muy ci jaspora bi ak fépp ndax ñi fi ne ku ci tukki ci ñi dàq tukki ku ci tukki dix tukki naa mille fois te fu ma dem wutal naa kenn nit Macky Sall depuis ñu sos 2008 ak léegi kon loolu man ci laa ne. te maa ngi ciy sant yàlla Macky Sall xam na nag sama place ba teg na ma fa xam na ma. soxnaam xam na sama place teg na ma fa sama jigéen sama xarit bu wér boo xam ne bii wax dëgg yàlla mënuma lu dul sant ko parce que Mbagnick dafa wax ñuy wax yoo xam ni di ko diaboliser ci presse bi te du dara waxul dara. da waxuma loolu damañ man même suma jabar boo bëggee jubook man. da nga jubok sama jabar man mi nit jabaram dafa jégué ak moom soxnaam mënoo di xex jabar yi nit ba paré defe na da nga jubok mom kon waxu mais jabar nak warta yam ci waru egg ba ci république ak fal waxuma de waxuma fal nak faluma falumi dama ni ku bëgg jubok kilifa da nga ak njabotam da nga jubok soxnam surtout ndax soxnam séq naag moom loo xam ne keneen séqu koog moom kon yoy nañ ko arrêté ndax ñi koy wax ñom ñep leader politique yi ba gis fi yep dañ boo tuddee seen soxna am na ci ñoom influence tous les leaders y compris Wade ñu neexal la ak Diouf ñeneen ñi nga xam ne ñi jarul ma leen di tudd ndax nekkaguñu président boo tuddee madame ñu neexal la <laughs> euh, euh, léegi ci APR na tey ci la ñuy descend parce que euh, gis nañ ni tamit temps yi APR dañ fa xaw a nemmeeku tuuti arrogance li tax ma ni arrogance xam naa tamit moo xaw na rëy mais président taxaw ngay wax yenn kàddu yi joxoo ko sax cër mu mel ni faale woo ko te moom mi nga xam ne nag mooy njiital parti bi loolu tamit euh, bu yàggee ñu ne arrogance la mu mel ni APR lu waay neex def la lu waay neex wax même ci kanamu Macky Sall. man daal li ma gëm te xam ne moom lay fekkee mooy Macky Sall nekkul ku yablu lu boppam loolu laa xam am na yu ñuy wax fekke wu ma ko euh, mënuma ci wax. te gëm naa ne nañ ko waxee demewul noonu loolu laa gëm ndax information yi ma ci am ak li presse bi relayé soree trop ak lu am ay nit politique ay dana ba am déraper mais ne kenn Macky Sall président de la République le président Macky Sall ngay saaga ci kanamam kooku moom ne kenn ñeme na ko waaye nag tempérament mën ngaa waxanteeg nit la nga ko wax mu tontu la tontu la tàng tontu la dépassé ak lu mel noonu loolu mën naa am day am ndax fi ñuy toog nañu xam ne du ci république bi lañ toog bu ñu toogee ci parti parti la parti nag moom euh, dafa dafa am euh, ay concurrence am ay ay xuloo am ay juboo kooku président bu toogee ak njabootam bu ñu xuloo day fexe ba jubóole leen kooku amul lu ñuy relater ka wax wax joo xam ne ji amul njariñ seen kër gi sax bis bu ne xam naa ne ñaari journaliste xuloo wala tojante ci kanamu bugaan bugaan di woo leen di leen bàyyi leen caaxaan yi loolu moom fépp la jàmm ak salaam rek lañ leen dëkkee euh, euh, ba tey ci ci ci euh, APR yaakaar mën nañ ni li ko boot li ko li ko ëmb moom mooy Benno Bokk Yaakaar te nag Moustapha Cissé Lo dafa mel nii yaa ngi am ñoo xam ne dañ leen commencé siis ci Benno waa parti socialiste dafa mel ni ñooy brebis galeuse bu bu kii bi coalition bi. xam nga man euh, euh, damay assumer li ma wax. loo wax daal da cay delloo. dama koy assumer dama ni. coalition bi ñu ànd. ñëw jox Macky Sall réew mi Macky Sall teg ci taabal ji nar bi daggal ku ne morceau. ngeen pàccoo réew mi ngay lekk waaw pàccoo ku ne dañu la daggal. waaw ngeen pàccoo réew may ma tuuti. jox lay député jox la ay directeur ñu ànd di gérer réew mi képp koo xam ni kii am nga ci looy critique mbaa nga jàpp ne li ñuy def baaxul ndax baaxul mooy nga ni damay nekk candidat 2017 te Macky sal jox la ci teranga ji ngeen war a ànd bu amee deux mandats ba pare nag ñu doog a set comme ni ko waa AFP waxi nga ni da ngay xeex moom ma ni bu doon man maa toog ci place su Macky képp koo xam ne loolu mooy sa position bés boobu lay arrêté ak yow loolu Abdou Diouf def na dans ce que dugg ci régime Abdou ci gouvernement de majorité élargie bi mu waxee ay wax Abdou Diouf da koo wàccee Ablaye Wad gars yi commencé di def nii di def nii da leen ni ay ñu ko a jàppale dëgg gi ndax pouvoir kenn du ko asalo doo ànd ak nit bokk ak moom di gérer muy xam say secret di ànd ak yow ndax gestion yi ay secret da ci am gestion yépp léegi ba pare njariñ yi ciy génn aussi ndax pouvoir ko la ni njariñ amu ci da lay nax dafa am njariñ ndax solde am na ci boo xam ne bi am na carburant am na oto am na kër guñ lay jox te lu yowoo fayal la courant yooyu ay avant ñu defal la ko ba pare ki jox teraanga jooju nga ni damay fexe ba mu daanu ndax boo xasee ba créer candidature yaa ngi wax ne da nga bëgg mu daanu kon kooku loo koy doyati loolu mooy wax bi ko moo tax ku nekk dafa war a assumer li muy wax ku nekk jël ay responsabilité man loolu laa ko gisee. Mhm. dinañ ñëwaat léegi ci ci ci waa parti socialiste ak itam candidat bi ñu jàpp ne entre guillemets moo leen xaw a tiital candidature bi ñuy war a posé 2017 léegi léegi dinañ ci ñëwaat ak Moustapha Cissé suñu deuxième partie émission lay doon ñu daw xooli léegi une page de pub ñëwaat.